nañu bàyyi immigration clandestine du solution dem ci géej gi di fa ñàkk seen bakkan jaru ko nañu toog ci réew mi ñu àndandoo nag ndax ñoom ñoo xeex ba teg fi seeni masse pratiquement président ba siru Diomaye Faye li mu magee mun naa de mu ngi ci biir jeunesse bi ba léegi ñoo fi teg seeni masse ci kaw programme bi ñu am ak gis-gis bi ngalawaay nañu toog ci réew mi ndax du image bu rafet saa su ne ñuy woon àdduna bi yépp ay gaal yu këpp ci biir géej gi ñu naan nangami ndaw faatu nañ ci ci réew moo xam ne nu mu metti métti métti gaw ma ni xiif am na fi ba nit di dee parce que lekkuloo walla naanuloo te jàpp naa ni millions yi nit di def di ko jox passeur pour dem Europe bu góor góorloon fu tuuti fii moo xam day dem defi aviculture wala mu def euh, euh, apiculture wala mu dem di jënd di jaay wala leen mën na ci am lu mu suturloo en attendant di progresser kon bu ñu àndee dañuy ànd ci dëgg jël gaal naan maa ngi dem Europe walla jël désert bi du solution wu kenn boo yegeeg boo yeggul it nañu am fierté toog suñu réew liggéey réew mi defar ko Chine métti woon na naam am na ay chinois yu doon émigré waaye la ëpp ci chinois yi dañoo toog liggéey biir Chine Europe métti woon na ba nit soo lekkee soo añee doo reer loolu defe naa amagu fi waaye européens yi dañoo toog liggéey seen réew kon ñu nit dañu toog ci réew mi te xam ni bu dee njiit yu jub am na fi bu dee njiit yu bëgg réew mi am na fi bu dee njiit yu am gis-gis am na fi bu dee njiit yu bëgg xeex ngir delloo si alalu réew mi ci réew mi am na fi